léegi lay thème yi ngay abordé ci kii bi ci ci internet bi inspiration bi fu muy fu muy jógee inspiration boobu parce que thème yu bëri nga ci waxandoo en même temps loo wax rek doo ko répété waat. Euh, d'abord ci ci ci ci suivre actualité la jógee. parce que yàgg naa ci rap. ñu bëri xamuñu ko en fait bi ma commencé def freestyle yi. ci la ma Sénégal yi doo ko xam. mais damay suivre actualité et parfois en tant que porteur de voix damay bëgg joxe suma point de vue. donc comme l'internet est là donc ñu xalaat ko ak euh, sama manager ne ma est-ce que mënuñ ci def ay capsule freestyle di ko poster sur internet. Mm. donc di aborder ay thèmes. loolu moo waral en fait euh, lii ba Sénégalais yi bëgg ko jusque mbir yi foofu la tàmbalee donc bëgg a wax juste joxe suñu point de vue ci actualité bi wax Sénégalais yi en fait euh, suñu xalaat foofu la freestyle yi jógee. d'accord mais sa freestyle yi ngay def yëpp tee de Dakar nga linkit boobu nan la fa demee. waaw en fait man du man sax maa ko njëkk a posté tee de Dakar non man dama doon def freestyle def ko ci sama page Facebook. donc nit ñi bëgg ko. am ñu koy récupérer di ko dugal TDD TED Dakar donc am ñu may woo naan ma gis nañ la TED Dakar TED Dakar boobu man nekkuma woon sax adhérent donc après gars yi ñoo ma dugal TED Dakar. donc man aussi ma commencé suivre saal yi donc euh, di xool commentaire yi euh, foofu moom xam nga gars yi moom du ñàkk sama <laughs> tëmbal la xeer. Mm. mais chaque jour li ma doon motiver rek mooy à la fin damay gis ne. Euh, ak loo ma mën a sànni xeer ba pare naan le gaa il est fort donc man l' et est de passer message man loolu rek moo ma ñor donc euh, waral ñu doon ko posté TDD ba yeneen ñu bëri reprendre ko aujourd'hui Sénégal mm. le monde entier di ko seetaan. d' accord mm-hmm. à visibilité bi aussi lan la apporté ci sa. connaissance connaissance am na link yu bëri. Mm-hmm. surtout ci ci ci ci ci milieu hip hop bi. ci milieu bi y' a pas mal de rappeurs pas mal d'old school yoo xam ne dama leen doon seetaan euh, doon rêver dans la vie que ñu mës a toog waxtaan su ma toogee ba ñu may envoyé SMS naan ma li ngay liggéey naa na ñu ngi koy rafetlu vraiment loolu chapeau mooy connaissance bi. d'abord aussi am na ay ay ay ay ay ay link yeneen yu mu indi vu que ne parfois comme léegi am na visibilité donc ñu ngi ñu ngi on est recherche dem ay partenaires di am na ñu ñuy woo naan ñu dañu bëgg soit moo xam marque la soit dara dañu bëgg aussi muy feeñ ci freestyle yi donc et ñu ngi ciy waxtaan comme am nañ benn producteur ñu ngi waxtaan ci affaire boobu moom moo chargé wu loolu donc man boo jaaree ci man rek passoire la ma sànni la ci moom quoi c'est ça d'accord euh, bu ñu aussi ci freestyle bi def ci internet bi 2017 euh, génnee nga woon benn album insomnie. Mhm. am benn titre poobar say nen. fi jur coow yu bëri. <laughs> laay yow ak waa kër gi de Kaolack lan mooy seen problème. <laughs> waaw juste que dañu def euh, mixtape boobu insomnie 2017 ak suñu label bu nekk Kaolack musique buzz. donc ñu def benn insomnie mu nekk benn mixtape ñu génne ko ci le 14 euh, 14 mai bi mu génnee après ñu jaay ko donc y un membre peut-être du ma tudd turam ci ci la groupe kër gi bu Kaolack donc bu dem ci média bi di rajo de la place di di diingat benn track bu tudd Poobar say nen donc def na ko benn yoon ma dégg ko ak samay gars yi mais waxuñu dara garder le silence. mu demaat ci beneen rajo ne je réitère mes dires donc voilà euh, am na lu ñu yàlla boole woon ñu bokk Kaolack bokk même secteur je me dis que ne bu dee dañuy prononcé wu ci suñu tu ci suñu ci suñu produit loo xam ne du ñoom ñu ko produire defuñ seen ñaar dërëm du seen xam-xam du seen dara te ñu amul link bi ak ñun parce que bu ñu soxlawaan si seen plateau yi dañuy woo dañu dañu bëgg ngeen participer donc bu jour bu demee ba am benn produit bu ñu mettre génne ko def sur le marché je pense que bu ñu ciy prononcé wu seq nañ loo xam ne war nañu mën a woo waxtaan ak ñun ci loolu mais ñu ko ñu dem toog ci média bi et voilà def ko defaat ko loolu moo waral coow lii donc voilà ñu ñu def réplique moo waraloon <laughs> coow loolu noonu mais voilà c'est d'accord moo mhm. waral coow bi mais yéen ak waa kër gi yéen a bokk même koñ mhm. muy Casamance mhm. léegi waa kër gi ñoom bu nekkee sax benn année ñoo leen ko jiitu caab léegi pourquoi pas ngeen dem ba ci ñoom régler problème bi en interne que ngeen di génnaat di def ay sorti di clash ku ci nekk di clash sa morom waaw xam nga xam nga xam nga euh, ñoom dañu am benn label ñun ñu créé benn label ñoom ñu am ay ay ay jeunes talents yu nekk ci ci taawon bi di job ak ñoom. donc ñun ñu yor suñu yëfu bopp di job ak ñun. di job suñu yëfu bopp tu comprends nga je pense que ne booy prononcé wu ci loo xam ne en fait sa sa xaalis demu ci il est libre nag de dire nga wax sa opinion quoi tu comprends nga mais aussi kan moo war a wax. parce que am ñoo xam ne je pense que ay nit lañ quoi c'est des personnes yoo xam ne dañuy déglu donc baaxul c'est pas hip hop. tu comprends day am ñu lay déglu dañuy yaakaar ne li nga wax baax na or que li nga wax c'est pas bon baaxul. parce que amul benn dictionnaire bu ñu bind ne tey mot bi war nañ ko wax ci ci ci ci rap wala war nañu ko wax ñun ay sénégalais lañ duñu ay complexé man olof laay làkk comprendre nga. am na mën naa wax tuuti anglais mën naa wax tuuti français mais je préfère ba samay freestyle su ma koy aborder dama koy aborder en wolof. parce que on est Sénégal su suñu làkk la comprendre nga donc amul poobar say nen du dara lu dul bu la yàlla dimbalee nga dem ñàkk sa xaalis liggéey ko mu jaar ci yoon donc am nga droit bànneexu ci quoi donc ñi wax yaa ñi ngi wax yaa ngi noos ñun on préfère créer suñu moo bopp suñu biir lañ ko doon waxtaan boo solo ñu naaj ñu la boo yaa la juste que wax rek donc li ngeen di ne le mot c' est pas hip hop poobar say nen c' pas hip hop donc je suis désolé ñu ne leen bon peut être xëy na dañu xawoon fàtte am nay jamono ñoom ci seen track ñu utiliser ci mots yooyu comprendre nga poobar lañ ci suy sagar ngi xeeñ dem ba fàtte loolu si tu conçois que ne loolu c' hip hop et poobar say nen c' donc voilà moo waraloon réplique bi quoi et voilà c'est passé donc jeex na. <laughs> d'accord mm-hmm. euh, lay nga am sa labelu bopp. xumaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, produire sa vidéo bi mujjee génn. mu contradictoire yow sa linkit ak xumaan. waaw fan jógee ak lan mooy baasu euh, seen collaboration yéen ñaar. léeri maam léeri maam suñu yoon wi la aw suñu yoon wi la aw ba suñu maam da baax Malick sàmm suñu lislaam nga ñuy seen fu haay ñëw leen ñu waajali gàmmu ji waay ziyaar sëriñ Bay Si Mansuur xalifa lazimaak wasifa Maodo indi na dàkk ñun de la ñu fa waaw xumaan assan moo tax ñu xamante assan mooy producteur euh, boutique laay donc moom moo tax ñu xamante avant tout que ñu xamante doon naa gis ci say ci seen commentaire yi la gars dafay nduru xumaan style xumaan la am et mu doon nit ku ma yàgg suivre c'est un gars c'est référence pour man parce que wax naa ko ci sama ba bële neen lu mu mës a def it la donc koo xam ne lépp lu mu def Sénégal yi bëgg ko musicien rappeur bu sañoon mel ni moom quoi te lépp lu mu fi def je vois que ne lu positif la ñu dem ba link bi xamante aujourd'hui on travaille ensemble ci butigu laay ak ci même suñu sama suñu carrière comprendre nga donc mu ngi ciy jàpp lépp lu mu mën et que franchement euh, ñu ngi koy remercier parce que seen un grand boo xam ne fa may profité di ziar label bi foofu noonu gars yi ñoom Zoum ak Mourit ak ñoom Pacha ak gars yëpp ah, parce que ay borom baax lañ donc maa ci biir falaa nekk on travaille ensemble xumaan mu ngi ciy jàpp et voilà nice quoi. d'accord mm-hmm. léegi bu ñu ci xumaan kii laay sa sa yi aussi boutique bi laay commerçant la wala laay boutique bi buy buy def vidéo yi kese la koy utiliser explique-nous un petit peu parce que ñun tout temps dañu gis lay boutiquier avec ses différents thèmes mais tout le temps même lieu. maa ngi soog a xam li nekk ci njaayam boutique pour nga mën ko foog nga am fulla te nekk ko tiit. boutique bi donc bi ñu commencé def freestyle euh, commencé wu ma koon sax ci boutique bi sama buntu néeg laa doon toog di ko def donc benn jour ko ci shop bi. sama manager bi ne ma booy li ngay def baax na c'est bon man boutique bi neex na parce que déco bi neex na ma ko am donc même budul loolu sax li tax ma préféré encore garder ko ci boutique bi c'est de montrer que ne suñu barabu liggéeykaay lañ nekk di def suñu passion. Mm. donc aujourd'hui musique rap daf maanaam aar dafa xaw a doy waar tey dem nañ benn instant am na jamono ñu fiy toog am koo xam ne te un artiste feebar ñu koy ketal et que jamono yi muy def aar bi ku ku xarañ la ci woon ñu dem ba benn instant yàqalu la musique bi ngay def ak lépp loo mënti def doon artiste war nga mën a am sa liggéey ci pet donc man je travaille pour ma mère sama yaay laay liggéeyal du boutique bi kese lay liggéey maa ngi liggéey feneen te sama yaay laay liggéeyal mais juste pour montrer background bi ci ginnaaw Sénégalais yi que ni il faut travailler quoi expression boobu dama ko bëgg trop quoi y avait benn suñu benn chef d'état bu ko doon wax faut toujours travailler. Mhm. donc voilà loolu dafa ma neex que Sénégalais yi il faut toujours travailler bosser donc première chose à faire mooy dama bërëbu liggéeykaay laa nekk di def sama passion donc sama mbokku artistes yi ma leen di wax ne voilà ñu ñu fexe rek bu ñu am liggéey. donc voilà du leen yàqal dara bu fi doxul peut-être yàlla mën na dimbale côté bële donc c'est juste ça moo tax mu koy def ci shop bi et puis euh, euh, am na lu ki soxla parce que euh, aujourd'hui Sénégal ñu bëri ñu ngi jaay seeni produit te boutique je pense que ñiy xëy te duñ fa dugg bëriwul ala kulli alim donc foog sénégalais yi ñu bëri dem ci daje ci boutique te yu bëri fa lay amee donc produit bi ne ci ginnaaw aussi ñu ngi def le maximum pour xool aussi ñun nan lañ ko jaayee. Mm-hmm. ça dépend ci ci ci ci kan ak kan lañ war a amal link boobu ba ba ba mu am visibilité boobu noonu aussi ñu ñu am lañ ci gagné ñu ngi ci liggéey et que euh, bu dul loolu boutique yëpp donc voilà Sénégal fu lekk di génnee foo xam ne lekk ak naan dafay génnee nit mënu fa ñàkk bañ a dem nañ def le maximum ba mu doon bërëb bu sell ko d'accord voilà. mën nañ xam projet lay à part euh, bi ak aussi euh, carrière musicale waaw projet bi du dara lu dul sama group comme ni nga ko waxee cent degré muy man ak Sylve sama doomu ndey suma frère sama lépp ñuy def musique yàgg nañ ci et que ñu ngi am ay projet defoon nañ benn mixtape 2017 donc ñu ngi liggéey pour benn album donc projet freestyle aussi maa ngi ci jusque indi leneen lu bees au Sénégal euh, def le maximum ba ñu def benn album de freestyle boo xam ne ni muy génnee en image noonu lay génnee ni muy génnee en audio noonu lay génnee en image donc voilà mooy projet yi à part ça ñu ngi ci leneen waaw ñu ngi ñu ngi ci leneen di ñaan yàlla suñu borom donc mu sotti parce que Sénégal moom <laughs> ngay yoon rek ba jàpp mbir yi quoi c'est ça. Mhm. Euh, dernier message euh, divers lay polygame wala monogamie <laughs> ah, foog foog ñu takk jabar yu bari jabar yu bari moom. foog ñu koy takk parce que man am na ay rakk kër gi te bëgg naa ñu dem je pense que bu ku nekk yemee ci benn amaana ñu dem donc foog gaa yi takk benn ñaar ñett pour en fait ñu dem quoi voilà loolu moom wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal góor ñëpp ñu doon kii nii man nag benn la am mais maa ñaaral si góor ñëpp ñu am ñaari jabar à part maa ngi maa ngi maa ngi nuyu sama sama fans yëpp ñu may seetaan ci réew mi ak bitim réew surtout sénégal Sénégalais de la diaspora dañuy jàpp ci affaire yi bu baax a baax a baax a baax. di nuyu gars yi encore Xuman Assane donc voilà label bi Kaolack Samu Silva ak sama manager Ouskaana di big up ñëpp ñu may ñu may ñu may seen ba pare nag dernier mot bi sama yaay laa koy jox moo ma def. sama maman man moo ma def bu ma àdduna doon ŋawte ŋawte yi dama liggéey bi moom la parce que mooy sama sëriñ quoi. yaay na dund yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam donc di big up ñëpp Sénégal di wax ne ñu yokk di ma ñaanal pour que projet yi jëm ci kanam. ba pare di remercier surtout la place muy Sénégal gis naa liggéey bu rafet bi ñuy def ci butigu laay merci beaucoup yàlla na jëm kanam. d'accord lan nga leen di may ci ci ci freestyle. waaw dinaa ci dinaa ci freestyle Sénégal parce que tey wax naa ko freestyle yi may def nii ci actualité bi laa ko génnee jusque pour may joxe aussi sama sama point de vue. te lu bare baree baree bare dinaa ko cueillir ay information ci Sénégal pour mën ko jottaliwaat askan wi kon donc ñoom dañ may inspiré dinaa def incha allahu loo xam ne freestyle la uniquement mais dooleelum njukkal ci ci en fait seen liggéey ci ci réew mi ak bitim réew quoi loolu moom c'est promis dinaa ko def pour Sénégal bu soobee yàlla suñu borom ah. donc voilà. merci beaucoup. ok. <laughs>